ñoo ngi lay niw te di la di jël ci nuyo bi kilifa diine yi nga xamni ni ñoo nekk ci bop njabot gi khalifatul am li taaifatil ya cheikh mahamadul muntaha yalla yag te wir non lay nuyoo xalifa tijaaniya xaadir laayen ñëpp bàyyiwun kenn kep ku am cër ci l'islam rek ak nu cër ba cëro ñoo ngi ñaan suñu borom yokk la te wëral la sammu la sammu sax njabot di nuyu it kilifa aada yi dale ko ci njiitum réew ak ñi njaboote ñëpp di ñaan réew mi jàmm suñ borom def ko fi bu baax tam sax fi dàkk ñoo ngi nuyu soppay Sëriñ Asan yëpp sëriñ bi te di leen bége bu baax a baax muy taalibe yi xarit rek am di jàmm yi nga xam ni ci réew mi ak bitim réew yi yëpp ci mboolem continent yi international foo ca dem fekk fa ñoo xam ne yow rekk lañuy bàyyi xel di top say jangale sa su ne ak bëccëg suba ngon ñoo ñe ñew ne nuyu nuyoob xol te di len bege bu baax di ñaan suñu borom deggal seen yaakaar ta defal len fajuk aajo di nuyu mbolam ñi nga xamni abonné nañ ci seen bi dina su TV TV media tay waxit kep ko xamni setan nga ko na nga abonné te bes kolos bi ndax day gëna yok liggey bi bu baax baax ñoo ngi nuyu it groupe bi nga xamni moy groupe nasu TV media te mbolo mu takku nek ci di and serigne bi di liggéey l'islam di liggéeyal serigne touba ñoo ngi bëgg ñëpp serigne bi kon suñu émission waxtaanu diina tay inshallah rabbi ci àllarba gi di le 22 yafe ni ñu ci and ak yeen sa suné di leen andil ay jàngale yi wuté waaye lépp di njariñ yin passé yëpp boo ko toppee buñ ci def rek tabarkal la tey nag dañuy ñëw ci salaatu gu tedd te siiw lool di salaatul fatiha buñ ko waxee na xel yi dem ci taalibe Cheikh yëpp waaye jullit yëpp a ko bokk ndax lu baax moom ñëpp a ko bokk te Cheikh Ahmad Tidiane Serif ñëpp la ñëwal ñëpp la fi nekkal kon sëriñ bi salaatul fatiha ci lañ bëgg a ñëw tey jii def ci ay waxtaanu waxtaanu gàtt nga baax ñu ci loo xam ne rek dinañ ci mën a jollikoo te mën koo jariñoo ginnaaw bu ñu bàyyee nga nuyoo ko mbokk yi lay seetaan bisimilah. waaleykum salaam. ورحمة الله تعالى وبركاته bu nu jiitalee sant yàlla sunu borom tabaraka wa taala ñu ngi julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah il wa idul aat alhamdulilah ala kulli haal suma salaatu wasalaam ala sayidna mawlana muhammad rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi siyaar mbooleem xaritu Nasrou TV média yi mën a nekk ci àdduna bi di yiital ci siyaar bi suñu sang sayidna bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ni borom bi moo wax ni waxuma akum ayna ma kuntum mhm. wallahu bima taxmaluuna basiir fu ngeen mën a nekk Mm-hmm. rasulillah ngi ànd ak yéen mm-hmm. doonte du ngeen ko gisit moom mi ngi leen di gis te foo ko duyoo mu fay la kon siyaar ko te nuyu ko mm-hmm. yeesal suñu tarbiya ci moom assalaamu aleyka ayuha nabi wa rahmatullahi wa barakaatu yaa rasulillah sallallahu alayhi wa siyaar dëkkam bu tedd ba muy Madinatul Munawwara dem ba ca Kaabatullahi al Haraam ga ca Makka tawaat ko fan yaangi ni nii di ñëw jaam mhm. yëpp waaj daw jëm fa mhm. maa ngi laaj keroog sa taari bi bii mhm. jaamu yàlla yi gën moo ci gën a baax xam naa maa leen doon wutal di tontu sax waaye ñu jox guñ ko mel ni kon fan yaa ngi ñëw rek ñu seet xam xëy na dañu àkk ñu ko bis kon mu dem Kaaba ga tawaaf yi makam ibrahim sam-sam hmm. safa ak marwa ak yetti at yii yëpp baax raf hmm. bu ñu ak li ko wër siyaat fu suñu soppe nek di déglu nasu TV Média hmm. te di ci jariñu ñi ñu am tañ nekk màkk soxna ay sotti ñoom ñoom soxna na koy duñ bàyyi kenn yep ñu leen di nuyu ak ña fa nekk góor jigéen mag dañuy dem Amerika siyaar yaay yi ak ña nekk ci seen ginnaaw ñëpp nag ñaanal ñun ñëpp am tawféex am jàmm am sutura xéewal yi bari ñu wut nañ ko am ñu wut liggéey nañ ko am ñu wut borom nañ ko am ñu wut ay soxla ko am ku nekk ci natt yàlla teggi ko ci barke rasulillah alayhi salaatu wasalaam borom mm-hmm. alxuraan barke xaadim rasulillah kon 52 wala 53 continents yi nekk. Mhm. États-Unis ba tax bu tudd état. Mhm. suñu d'Amérique ñu seet ñëpp. pour mhm. sotti nekk. dem Europe union bi yëpp ñoo tam ñu siyaare leen bàyyiwuñu benn dëkk bàyyiwuñu benn gox bàyyiwuñu benn soppe fu waaye nekk ñu lay jox loxo ci leen ñaanal ñu am tawfeex tam sutura xanaa rek jukki ca ñoom soxna Umu Xëy Dramé dafa baax. ndeysaan mooy tante yi soxna Xadi. waaw. <laughs> wala suñu tante kay. ndeysaan ndeysaan. Mm-hmm. di la ñaanal soxna si nga am wér. am mm-hmm. toog fi amiin amiin amiin. yaa ngi nga nekk ci dëkk bi yëpp. wa mm-hmm. tabarakallah. daal di war nag di wër yëpp ba barab yëpp nag. bàyyi wu fenn Italie Espagne Bruxelles noonu nga koy wëre. ba keroog ngay dem. réew yi dëkk yi ko war noonu yëpp. continent mhm. ba Afrique. Mhm. siyaare leen da ngay dem sax ba Russie. Mhm. Argentine Brésil fu nekk nii ñaa ngi ñu fay wooyee. nga xam ne lim de du xaj fii ba Canada. suñu bokk canadien yi. yàlla dafa leen jàmm. amiin allahumma amiin amiin. boo duggee Italie boobu a hmm? demee Espagne da nga fay fekk soxna ñëpp di ay garab di ay jàmbaar ba ci ñoom soxna caba yàlla defal leen tawfeex ak sutura waaye mën a nekk rek ndax boo doon lim ba suba doo jeexal doo jeexal da ngay tudd rek noonu ñu yóbbaale ñëpp géew di ñaan suñu borom defal leen tawfeex allahumma amin amin sànni beneen bër waayam indi ñoom soxna Mariam Konaté jàmbaaru lislaam la te bëgg lu baax lool ndeysaan yàlla ko yàlla defal tawfeex amin allahumma amin amin amin amin ndeysaan borom dama bëgg ni sëñ Xaadim mel ak sëñ maam Gox ndeysaan ma ma def ma mel noonu ndeysaan te nañ koy def ma mm-hmm, ak saa yàlla ko yàlla taxaw mm-hmm, mm-hmm. hmm? loolu la ngeen Afrique gi siyaare ñëpp ñi fi nekk ndeysaan bi ñoom soxna Baye mu baax ni ñu koy siyaar baax ni mu tëdd si nga xam ne waroon du jébbu ni keroog Baye Fall bi soxna Aïssa boo ko bàyyi ginnaaw ñun ñu fi tuub ñëpp ci diggante bi. Mm-hmm. yàlla yàlla fan ñëpp toog. amiin allahumma amiin amiin amiin amiin. siyaar kilifa diine yi ci réew mm-hmm. te ñaan nag jàmm am Sénégal. Mm-hmm. naam fépp ci àdduna waaye na am yàlla dimbali na ci sunu njiit yi. ñu dëppoo ñu topp ci ñoom. xëccoo lu ko jar na ko. waaye du ko jëm jëm ko. te sëñ Xaadim tool bu amee ay aw dig. ku jàll digoo yaatu. waaw. bu ñuy natt Sénégal ay élection hmm. dañ naan fii la tàmbalee. fii la yem fii la yem. léegi fexe leen ba ku tàmbalee fi nga tàmbalee boo ñëwee fi nga war a yem rek yem fa. Hmm. jàmm ni ñooy kenn du xeex. Hmm. waaye ku bëgg ni damay bay ba jàll si biir tool bàyyi la lu xaw yaa ko. waaw ginnaaw nag léegi bi lu xëccoo la. kala meer gañ. waaw nañ bàyyi bu ñu eggee ci loolu ko war a def nañ ko def. ku gagné ñu mm-hmm. koo xam na nga egg fi nga war a jëm la droiteel bàyyi gars yi jàng jàng adduna noonu la baaxoo mm-hmm. li si rek mm-hmm. tey ku nekk sa mission rek ngay dox bu jeex bu jeexee da ngay da ngay bàyyi keneen ñëw loolu mooy li nekk bu ko defee nag kon mu ngi ñaan ñëpp teg ko ci aw yoon amin allahumma amin amin bi la bu baax ñu tari spécial ñi nekk tey ci salle bi mhm. technicien yaa ngi toog donga daara yaa ngi toog mhm. amateur amatrice téléspectateur mhm. téléspectatrice a ngi fi kon ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla toog ak sukkura kon nag loolu mooy nuyoo bi jël si ci eh, jataayu diine bi bàyyi la ak kàddu ci suñu